قرآن املأ قلبي قرآن Fidèles téléspectateurs de la TFM, salam alaikum maa ngi leen di nuyu toujours un plaisir de vous retrouver si seen émission ziar numéro bi nag mu nekk le premier numéro après les élections euh, bien sûr dañuy féliciter tous les Sénégalais si manko bu ñu manko bien sûr tànn seen président di féliciter également notre nouveau président son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye euh, di ko ñaanal yàlla nag euh, yéen bi woyof ci ay loxom oustaz maa ngi lay nuyu jërëjëf Adja Cécile maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi lay ndokkeel itam ci weeru sell wi ñu nekk di ñaan yàlla rek lépp loo xamante ne bii woor nañ ko yàlla nañu ko yàlla nangul ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin euh, merci oustaz euh, Pape Cheikh nag lii moom il faut que ma wax la ko parce que depuis nga tudd sama nuyo bi ba tey depuis sànq oustaz man lay kaa ñëw fii ci plateau bi <laughs> tey nag chers téléspectateurs euh, suñu invité mu ngi nekk monsieur Ibra Seck di directeur des carrières. président de l'association des géologues nekk également président du mouvement Sukkali euh, Grand Yoff monsieur Seck ñu ngi lay nuyu di le dalal. bon maa ngi leen di fay di nuyu borom télé bi di nuyu aussi téléspectateurs yi ak sénégalais yi ñuy seetaan yëpp. merci monsieur Seck bu ñu déggee euh, directeur des carrières ni yu mel ni man <laughs> dañuy yaakaar ne ay carrières la ñuy wax alors que duñu sax penser côté construction euh, quentend par directeur des carrières ak c'est quoi son rôle. bon en fait euh, <laughs> carrière bon bari nga ci morom ah. ñu bari bu ñu déggee dañuy teg ni carrière professionnelle la mais carrière boo ko déggee pratiquement euh, tous les matériaux de construction yi ñuy tabaxee ci carrière lay jóge tey jii ñuy tabax seen i kër matériaux yëpp ci carrière lañ koy jëlee muy suuf di beton ciment par exemple matériaux bi carrière moo koy defar maanaam calcaire bi la ñuy jël ak euh, argile bi ban bi togg ko. mu joxe clinker ñu def ci gypse mu joxe ciment. macha allah boo tabaxee ba aussi y a les muy granit bii di marbre grès yooyu yëpp ci carrières yi lay jóge basalte bu ñuul bi ñuy defaree tali bi ci carrières yi lay jóge donc daal vraiment voilà en résumé loolu mooy carrière. maanaam ci wàllum construction. voilà ci wàllum tabax et tout ce qui est voilà infrastructure. li ñu koy defaree yëpp ci carrière lay jóge d'accord donc euh, nga nekk membre de l'APR euh, lan lañ mën a retenir euh, selon vous ci bilan wu président sortant monsieur Macky Sall. waaw mag président Macky Sall moom bilan buñ ko doon wax fii la ñuy fanaan parce que dans tous les domaines boo ko jëlee def na ci ay réalisations yu am solo sur le plan sportif boo xoolee arène national bi mbër yi doon jooy def na ko tabaxal ñu stade Diamniadio defar euh, ay aéroports régionaux n'est-ce pas defar ay autoroute Ila Touba yooyu yëpp ay réalisation yi mu def la man secteur bi ma nekk rek muy secteur minier bi réformer na le code minier def ay réformes defaraat code pétrolier bi def loi euh, de répartition des recettes pétrolières maanaam xaalis bi génn ci pétrole bi ni koy séddoowee n'est-ce pas defar beneen reforme boo xam ni day am fonds boo xam ni pour la génération future donc euh, sur le plan de la santé aussi tabax na ay hôpitaux de dernière génération hôpitalu Touba bu Kédougou bi donc daal vraiment euh, gàcce ngaalaama rek lañ koy wax. <laughs> ñu si ànd ak di ko euh, di ko remercier. voilà également. ñuy profiter aussi de l'occasion pour féliciter le président élu muy le président Bassirou Diomaye Faye di ñaan aussi mu mu doon lu gën ci Sénégal parce que yàlla moom lu gën ci Sénégal rek lay def. donc nag euh, comme moom la yàlla tànn jox ñu ko boo dañ koy ñaanal rek mu réussir mission am. amiin voilà euh, ñu dugg nag léegi ci question euh, Ramadan bi mm. parce que en fait mois de Ramadan ñëpp xam ne ne que c'est très différent donc quotidien bi du nekk benn ñuy laajte liggéey bi day yokku wala day wàññeek vous sentez que vous avez plus de travail ci Ramadan bi wala wala moins. ah oui oui day yokku ok day yokk parce que mois de Ramadan pratiquement da teel xëy. boo xëddee presque doo doo doo tëddaat noonu ngay jaar dem bureau donc euh, doo jël temps pour dem añi <laughs> voilà doo jël pause donc pratiquement bureau ngay nekk ba wàcc jot donc nag ci ngay gën a am temps pour liggéey li nga bëra li nga gën a euh, li nga bëgg a liggéey yëpp di nga ko mën a liggéey ci mois de ramadan bi donc euh, mën naa ni say tâche day day gën a yokk voilà donc nag ça te permet voilà nga évacuer dossier yu bëri ci mois de ramadan bi c'est day yokk tamit productivité bi vu que euh, liggéey bi day day day day gën a yokk. waay waay waay bien sûr mois de ramadan moom boo ci duggee da gis mhm. ni vraiment day yokk productivité bi comme ni nga ko waxee donc euh, dafa doon weer boo xam ni pratiquement résultat yi sax ci lay ëppee parce que nit ñi dañuy liggéey bu baax a baax voilà amul pose amul dem añi comme géyee ni niñ koy jafeet jafe ni <laughs> voilà donc ñëpp dañu concentré wu ci mhm. ci liggéey bi macha allah ma bàyyi la ak oustaz nga posé ko sa question ci wàllum diine loo bëgg a xam rek wala loo bëgg a leerlu. bon li ma bëgg a leerlu mën naa ni par exemple euh, ci mois de ramadan bi yàlla lan la wax ci kuy woor ba pare di jëw est-ce que day yàq koor wala déet loolu daal bëggoon naa ñu leeralal ma ko. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nu sante yàlla sunu boroom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu sunu invité bi bu baax di ko dalal di am mbégte lool di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a barke liggéeyam ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa mu mel ni laaj na laaj bu am solo ndax jëw ci biir weeru koor dafay yàq koor jëw ci biir weeru koor du yàq koor waaye dafay wàññi say tiyaaba am na ñoo xam ne bu nu wooree ci jëw la du yendu mooy ñuy woor ba pare di topp kaa di wax lu seen yoon nekkul yu sew yooyu ngay def ci bëccëgu weeru koor te yàlla tere la ko muy lu mel ni jëw lu mel ni fen lu mel ni rambaaj lu mel ni ngistal yooyu ay acte la yoo xam ne bu jullit bu ko jullit bi dee def te fekk ni moom dafa woor du yàq kooram waaye nag dafay wàññi tiyaabaam mooy su su waroon a fayeeku ci koor gi mille pour cent danañu ko wàññi ba mu am cent pour cent ndax loolu dafay wàññi say tiyaaba ci bëccëgu weeru koor moo tax ñu bëgg jullit bi su wooree ba koor gi des ñaari fan wala ba koor gi des ñetti fan wala sax ci bis bi nuy korite avant ñuy julli ji mu génnee lu ñuy tuddee muurum koor ndax muurum koor wax nañ ni mooy tax yàlla baal yu sew yi nga doon rëcc la ci weer wi di ko def yàlla mën la koo jéggal waaye kon mbokk yi ñu xam ne ku wóor bu jëw temps ba nga nar a def toog di jëw na nga dem jàngi ko alquran temps ba nga nar a toog di rambaaj demal nga saraxe ko wala nga def ci yiw lu yokk say tiyaaba kon jëw ci bëccëgu weeru koor du yàq sa koor waaye dafay wàññi say tiyaaba yàlla yàlla defal ñu tawfiix asalaamualeykum wa rahmatullah aja sisil jërëjëf oustaz merci ci leeral yooyu noonu yu am solo yooyu euh, balaa nag euh, ñuy tëj émission bi dinañ si profiter remercie d' abord suñu invité bi accepté suñu invitation ñuy remercier également suñu sponsor yi euh, ku ci mel ni waa groupe Sénico ak seen pâte alimentaire Amira seen pâte alimentaire Amira comme ni ma leen koy waxee rek neex na sell na bëri na variété am na spaghetti am na vermicelle am na macaroni pâte alimentaire Amira 1 di euh, remercier euh, toujours groupe Sénico ak seen margarine Kadi margarine Kadi neex na tartiner ci seen petit déjeuner seen goûter euh, neex na tamit ci seen togg. di remercier également suñu sponsor boobu di Ndiaye Jesner di def vente en tissu en gros et en détail tissu tout genre tissu bu rafet boo leen bëgg dem leen foofu si Ndiaye Jesner am na ko mu ngi nekk Pikine tali bu mag marché Zinc numéro mu nekk 78 304 20 04 ñu ubbi tamit benn magasin bu bees nekk foofu rek ci Pikine ba tey Ce numéro nekk 77 575 1103 ñuy remercier waa jus original seen ju euh, originalement bon sans colorant son conservateur existe en euh, cinq parfums orange mangue ananas pêche et cocktail distribution exclusive au Sénégal et dans la sous-région par euh, Nukuman Group ñuy remercier euh, suñu sponsor boobu noonu di Orange euh, Sonatel nag euh, lépp luy générosité rek mun nañ ne ñoom ñoo nekk au cœur franchement machallah ñu ngi déployer des actions solidaires pour apporter leur soutien aux populations ak seen marmite du cœur yu sillonné Sénégal accompagné des pluies du cœur toujours au service de leurs clients équipe Orange nag euh, di leen euh, sillonner toujours euh, Sénégal di rendre visite à des clients di leen offrir ay ravitaillement à travers seen tour boobu di Sénégal Tour weeru koor nag euh, si seen gox tamit dina leen permettre euh, ñoom waa Orange ñuy offrir ay nattes de prière ak ay ndogu dans les mosquées jarama Orange. ñuy remercier également suñu sponsor boobu di Sénéfoot avec leur lait euh, en poudre Nour et leurs céréales pour bébé Melolac suñu sponsor yi nag ñoo baaxee suñu invité bi toog cadeau yi ni ngeen di gis mooy waa Sénéfoot waa Sanico ak waa Senjeu chers téléspectateurs merci beaucoup nous nous retrouvons demain inchallah sur la chaîne télé du merci.